حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب لا عناء arrêt sur texte taxaw seetlu ci mbind mi asalaamaaleykum mbokk yi seetaan seen télévision TFM religion ñi ngi leen di nuyu te di leen ziara di am mbégte dellu siwaat ak yéen seen émission bii di arrêt sur texte arrêt sur texte ni ngeen nu ci toppee samedi ju jot ci waxtu wi ñu fas yéene dellu siwaat ak yéen toppaat rek mbindi mag ñi waaye toppaat seen xasida yi nga xamante ni nii dafa fees dell ak leer waaye dafa fees dell ak ay njàngale léeg-léeg ñu génne ba bitim réew dem jëli mbind yooyu nga xamante ne ni mi ngi jóge ci borom xam-xam yu mag yi ndax loolu la yenent bi digle di wax ni jullit moom mbaax alalam la kon nag fu mu ko fekk rek na ko jëfandikoo bu ko defee rek doon na wax ni dem leen jëli xam donte da ngeen di dem ba siin ñii ni siin waaye it fu mu lum ci liñ ci bëgg a wax rek mooy yenent bi nee na xam fenn fu waay fekk rek na ko jël jëfandikoo ko Euh, tey nag mbokk yi ñu fas yéene tàmbale ci sunu mbindum maam mii di maam Serigne Touba radiyallahu taala anhu ci xasidam bu rafet bi di raiya bi nga xamante ne ni moom la way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tàmbalee ko ci qalbi lahu fi itaabil jismi takraaru li annahu lil huda wa nuuru jarraaru muy wax ni li sama xol ëmbal yonent bi ci cofeel ni sama xol feese ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa day yaram wi lott na ci fekk xol bi foofu mu toll ngir jëf lu toll noonu lu tax euh, ngir nag ni yaram wi euh, dañ koo tënk waaye yaram wi nekkul ni yaramu libre la ndax ku ne xam na ni li ëpp ci dundam ci résidence surveillée la ko dund maam Serigne Touba radiyallahu taala anhu waaye terewul nag la mu amoon ci xel ak xol yëpp jox na ko rasulullahi ba ñëpp xam ni vraiment ki wasalu na ci àq ba kemtelaayil kàttanam mu tax mu ni euh, sama yaram mi ngi diis gann ngir tënk yi ko tënk waaye du te xol baa ngi fees dell ak mbégte ngir sopp rasulullah sallallahu alayhi wa kon nag mbokk yi dañuy dem régie rek jëli élément boobu doore ñëwaat ak yéen te di ci ànd ak sunu mbokk Xaadim Guèye mu woy ko woy wu neex wi mu ko woy kon nag waa régie ñu dem te ñëw incha allahu bilxuda لأنه للرضا نور جرار عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله قلبي لو فيك بالجسم تكرار لأنه الجرار عني لا من الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعده حلبي لا فيت بالجسم تقرار لأنه للهدى فنور جرار شهادة المريدين شهادة المريدين في أبداء خير المرسلين عليه وآله رسول الله يعلوم جسمي هذا بل في الجلوس إلى علم ولا عمل عن نفس خرار صلاة وسلام رب العالمين كل بيامين أكرم من خادم عبد الله تعالى وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال للخيريات هو يكسب ولسعادتي دهبا وهو خرار الله تعالى في الدار الخوف تولى دانا كل يا لموا في خار وفي جلال باسم ربي المحبوس مبرار في مسكني توبا في مسكني توبا في مسكني توبا yàlla moo fi xaarin wa fi kadada bi ismi rabbiya wal mahbus miqraar fi maskani tuuba fi maskani tuuba fi maskani tuuba حقق جسم يغام القلب يبلو من المناقب تسويف وإسراء الله من الكنيس بارس له تعالى بجال ممدود رسول محمد عصر وسلام فاليوم عواد هتائبا أبدا الله توبة أنا أغناء خفار من لم يستلم الدولي ثم اشتري ذلك إلى عبادة الله سبحانه وتعالى بإذن صلى الله عليه وسلم ومنها رأيت ياسين حسنا بي وفكك الكمال لمن علي لتركي سوراها جسمي أكرار لأنه للمدون من يخاتبني في ثور روضتي بيتان من قول من بالعرف أمار في سور روضتي بيتان من قول من رملت إبليائي فتدت الدار على من دونه شغل وعمار ستدك قدر عالم دونه زعلم فرحا تعب أن ستدك الدار عالم دونه زعلم وإن ستت بك الدار بك الدار عالم دونه منها يمنع عنك أحد من زيارتي إن المعيب لمن يحواه سوار بعد من زيارتي إن المحب لمن يحواه يمنع عنك بعد من زيارتي إن المعيب لمن يحواه سوار لا يمنع أنك بهد عن زيارتي إن المعيب لمن يحواه لا يمنع أنك بهد من زيارتي إن المعيب لمن يحواه سوار بزيارتي إذا الميبا لا يمنعنك جهد من زيارتي إن الميبا من يهواه سواه ودل زيارتي إذا الميبا يمنعنا وفد من زيارتي إن المعيب من يهواه سواه بود زيارتي إن المعيب عند المحب لمن يهواه سواه زيارتي إن المحب لمن يهواه زوار ndeysaan dëgg la dëgg la innal muhibba liman yahwaahu zawaaru soppe bu nekk kam sopp war na ko di ziyaare ji waruñu di gëje benn yoon loolu la tëjee ndeysaan muy xasida bu rafet nag di raiya maanaam xasida bi euh, xaafiya bi raiya la maanaam araf yu mujj ci xasida bi raa moo tax ñu naan raiya wante mu rafet loolu nag ci tagg ndax daf ni sama xol sama xol euh, euh, day mi ngi yedd sama sama sama yaram waaye sama yaram a ngi gàntulu ndax li ko xol bi di laaj yaram yi mënu ko koo jox ndax léeg-léeg mu bëgg jaamu yàlla fekk ñi ngi ko ñi ngi ko teg ay nattu léeg-léeg mu bëgg a jaamu yàlla fekk it euh, mi ngi nekk ci place boo nga xamante ni du place bu ñu mën a jaamoo yàlla jaamu yàlla yaram bu boobaa rek mu dawal yéeneem ci xolam dawal yéeneem ci ruuxam moo tax mu ne nag yaluumu jismi daban fil julusi bila ilmin wala amalin wa nafsu xaraaru mu ni sama yaram day mi ngi mi ngi am gàcce sax ci yedd gi ko xol bi di yedd bis bu nekk rek nan ko yow da ngaa tayyal lu tax nga toog ba a jóg jaamu ji yàlla lu tax ñu lay tënk nga koy nangu waaye ti nag xam ni loolu yëpp bakkan moo ko ci dimbali mu ni nag yalumuhu naam de mi ngi koy yedd waaye bu xamal la ko dal day du ko yedd ndax yedd yërëm a ko gën yalumuhu wa huwa fi qahrin wa fi kabalin bi izni rabbi wal mahbuusu mibraaru mu ne mi ngi ko yedd ci euh, euh, tënku gi mu tënku waaye it euh, gantañlu gimu muy gantañlu waaye aji tëj jii ñu tëj yaram wi day nangu na nag nangu na jébbalu ci boromam xam ni lii ko dal nattu la te nangu na jébbalu ci kanamu natt yooyu ba lu mu métti métti mu yanu ko mu tax mu ne qad aaqa jismi amma alqalbu yatlubuhu min almanaqibi taswiqu wa israaru mu ni sama yaram gantulu na ci sama xol ni ko maa ngi lay jéggalu yow xol ndax xam naa ni fa nga mën a àgg ci jaamu yàlla àgg fa ci leer man mënu ma faa àgg ndax dañ maa tënk dama nekk ci nattu waaye jéggal ma loolu nga xamante ni nii maa ngi la koy teg mu di tardé gi ma lay tarde ndax war ngaa weesu fii te it ànd gi nga ànd ak man yaram moo la tënk ba léegi moo tax mu ne nag fal yawma wajjahtu ta iban abadan lillahi tawbata man adnaahu gaffaaru maam serin Touba ni xanaa kon ma taxaw palaasu yaram rek jéggulul ko xol waaye jéggulul ko ruux moom mi nga xamante ne nii moo koy yedd bis bi ne kon nag xafaaru eh yow kon bi yow sunu borom xafaaru lixfir zunubi wafkukan kabali bi man alayya li tarki zawruhu aaru ci bàyyi ziyaare ji ki nga xamante ni nii wax dëgg yàlla ziyaare ji ko mooy sama mbégte mu yent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñàkk koo ziyaare nag mettit lay def ci sama xol ba abadan waay nag naqar lay def ci sama xol ba abadan ndax ba ma sañoon dem ziyaare ji ko waaye nag tënk yeeg natt yi rek ci sama kaw moo tax mun ko yàlla wa kukan kabal daggal samay tënk ngir ma mën a dem ziyaare ji sama soppe bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu surtout nag bi man yuxaatibu nii fi zawri rawdatihi baytaani min qawli man bil urfi ammaaru mu ni surtout nag moom moomu euh, di rasulullahi wax nag man ñaari bayit ci war gi ma ko war a ziyaare ji waaye it euh, euh, yàkkamte gi ma ko waran yàkkamte dem ziyaare ji wax na ceeg man ñaari bayit bayit ye ñooy zur man tuhibbu wa in shattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru demal ziyaare ji bayit bu mooy demal ziyaare ji ki nga bëgg te mooy rasulullahi donte nag donte shattat dafa taqali ko donte sa tat dafa sore bi ka sa digganteek moom a daaru kër ya leen euh, séparé bari na distance ba leen séparé bari na waxaalate dox na min duunihi ci sa digganteek moom sahlun tund waaarun ak joor wala waaarun ak ak montagne donte ay tund ki montagne ki désert dox sa digganteeg moom duggal avion dugg bato dox bu ko jëree ngir dem ziyaara ji ko tax mu ne nag la yamna annaka bu'dum min ziyaratihi innal muhibba liman yahwaahu zawaaru bu la ga euh, bu la dara taqaleeg dem ziyaare ji kom la yam na an naka bu mu la xañ mukk boodun distance boodun espace boodun temps ngir dem ziyaare ji ko sallallahu alayhi wa sallam ndax innal muhibba soppe bu nekk day liman yahwaahu ca kam sopp zawaarun war na bis bu nekk dem di ko ziyaare ji kon Serigne Touba ngi noonu di euh, tagg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci façon boobu mu ko tagge mbokk yi ngeen gis ni xasida bi xol la ko woyee waaye xasida bi day euh, xasida ruux la ndax li mu ci yëg ci yonent bi sallallahu la doon exprimé wu à travers mbindam mi kon nag euh, arrêt sur texte loolu mooy njariñam ngir ñu xam li message bi ëmb ci biir woy wi te ñu koy dégg di ko fetasu rek léeg-léeg ci jàng yi waaye léeg-léeg ñu ànd kook musique arab boo nga xam ne day neex te duñu xam lan lay wax kon nag mbokk yi suñu premier élément ngoog ñu euh, dugg ci suñu deuxième élément rek incha allahu mbokk yi deuxième élément bi moo di euh, dañuy génne réew mi rek dem fële ca bitim réew ànd ak bindkat bu rëy bi nga xamante ne nii moom la ñuy wax ashairu najjiya muy bindkat bu nekk ci Arabie Saoudite waaye di soxna nag bi yoon ndax it soxna yi wax dëgg yàlla am na ci ñoo nga xamante ni ñu ñëw xalima lañ euh, gis nañu ku mel ni Rabiatul Adawiya bindkat la waaye gise nañ ku mel ni xansaa u nga xamante ni nii wax nañu ni bu dee jooy rek moom moo ko dàq ci woykat yi yépp kon ki ñuy àndal moom mooy euh, soxnay euh, sultan ben abdul aziz bu arabi saoudite ñu ànd ak moom ci xasida bii mu bind wax ni yàlla inni fi rigak yaa mujib liman daa rabbi tigbal daawati di wax ni yàlla yow laa yaakaar ni woote bi bu ma la ko wooyee di nga ko dégg kon woote bi du dara lu dul ñaan la nga nangu samay ñaan xanaa ñu dem régie rek euh, jëli élément bi te ñëw جرحه بقلبي أنا ليت يفديه العنا ليت أفدي عزوتي ليت أفدي عزوتي ونته تلوعني واهته تروعني وعبرتي سلوتي أملاً ndeysaan amin amin rabbi tiqbal daawati yàlla yàlla na nga nangu suñuy ñaan moom lay tëje noonu yàlla yàlla na nga nangu suñuy ñaan moom la wax ñu ni soxna si ñaan gi bi mu koy xasida bii di bi mu koy bind mi ngi ci lalu hôpital dem ba naagu ni wa feebar bii ko daal nag du feebaru hôpital tax mu ne kon nag am comme am na docteur bu tiim docteur yi naa wax ak booba docteur ngir mu fajal ma sama jàngoro ji mu tax mu nan ko daawati lak ya azim yow yàlla sama woote bii de yow mu màgg tisfi abdun la karim mooy nga eh, wéral sa jaam bi nga xamante ni nii yaakaar sa sa mbaax moo ko tax a ñaan waaye yaakaar sa mbaax moo ko tax a yaakaar ni bu la wooyee di ko wuyu moo tax mu ni nag hu rajaa'i wa munyati mooy sama yaakaar te mooy sama mébét ni bu ma la wooyee di nga ma wuyu te di nga ma fajal sama jàngoro mu ni ko nag in taduubak ya tabib illi bii diinak habib bismi tahyidin yeti xam nga ñoom nag ci seen daarije boobu la ñuy bindee di seen amiya bi maanaam ci euh, comme ñun ni ñuy waxee arab bu leer bii nga xamante ni moom la ñuy jàng ci alquran karim bokkul ak ñoom euh, langue bi ñuy bindee ñoom ci seen daarije la ñuy bindee comme suñu wolof bi comme suñu séeréer rek suñu tukulóor yi ñoom ci langue boobu la ñu ëpp lu ñuy bindi donte bu ñu jàng alquran ci langue bi ñu koy jàng lañ koy jàng mu wax ni inta duubak ya tabib yow ñi nga xam ni yow laa considéré comme docteur et lee bi de bi nag ma nekk ci ci say loxo ngir ni yow yaa ma hospitalisé fii de waaye yëg naa ni am na docteur bu la ba tax docteur boobu lay wax ni ko euh, yow nag yaa ma mën a faj te docteur boobu nag bismatu hiya diniyati bu ma muuñoon rek benn muuñam boobu faj na ma xanaa kon mbokk yi mi ngi bëgg a wax si nekk nii ndekete kon moom waxul jàngoro yi yaram waaye jàngoro yi ruux lay wax waaye jàngoro yi lay wax muy mbëggeel gi nga xamante ne nii moom la ëmb ci xolam mu wax ni jur jurxa gal bi ana liiti yëf diihi la ana liiti af diihi azwati mu ni jam-jam bi mu jam ci sama xol moom cofeel googu day eh, ana liiti yëf diihi l ana aka neexoon aka neexoon coono man koo yenu mu ni aka neexoon mu bañ jam sama xol te teg ma coonoy àdduna bi yëpp ngir sama xol mucc mu ni leeti af diihi aka neexoon mu teg ma mettiti àdduna bi yëpp te bañoon jam sama xol moo ma gënaloon mu ni winta tilwa tilwa anni wa ahatuhu terwa anni wa abratihi salwati mu ni ki nga xamante ni nii moo ma jam jam-jam boobu ma jam nag Eh, tilwa an nii mi ngi may mettital mi ngi may ñaas mi ngi tàngal sama yaram bu doon ni safara la waaye wa ahatu mooy ay onkam ak ay binneem moom it tirwa an nii mi ngi may tiitloo mi ngi may jàqloo saa yu onkee wala mu binni rek sama fit wi ni tërét jóg moo tax mu ne wa abrati nag amatuma pexe wa abrati hi salwati samay rangoo ñu mujj di ma wettili ndax loolu nga xamante ni maa ngi koy yëg ci moom te mënuma ko wax kenn moo tax mu ne nag lew tin sidu an gala nuural uyun jaawi batkum damaati mu ni yéen mbooloo mi may déglu yéen mbooloo mi may seetaan ti yëg li ma dal te mënalu leen ma ci dara waay waay bu ngeen manoon jéebaane sama feebar bi ba mu wér te ma ko jéebaaneel bu dul loolu nag ngeen xam ni bu ngeen lu ngeen waxatiit jaawi batkum damaay damaati samay rangooñ rek moo leen di tontu waaye awma seen tontu bu dee da ngeen may jéem a yedd moo tax mu ne nag xubbuhu euh, illi bil warid min gidam maahu gadid rasumali sarwati mu ni cofeel gi ma ko ambal nag te du cofeel gu gu gu gu bees waaye cofeel gu yàgg la mu ne nak cofeel googu nag dafa foor ndax li mu jël ci man dafa bari ndax bil warid dafa yeew sama buumi xol yi waaye it yeew sama xol bi waaye yóbbu buum yi di ko laxas di ko laxas ba ca min giddam ba ca tànk ya ca ndëgguy tànk ya fala yeew yeew ba yam kon xanaa yeew na ma ba ma ni mooy moom na ma kon nag euh, moom daal ra sumali sirwati mooy sama trésor te mooy sama euh, confort fort ndax li ma ëmbal ci cofeel wax dëgg yàlla diis na ci man gann ba mënatuma def lu dul nekk ab jaamam moom cofeel googu te yàlla ne cofeel gi gën a dëggu muy sop yàlla di sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag mbokk yi eh, loolu mooy deuxième élément bi ñu dem rek eh, régie eh, jëli beneen élément waaye it balaa ñu fay dem nag ñu nuy ziyaara mbokk yi ñi nga xamante ne ñi ngi ñuy sopp ñi ngi ñuy topp ci émission bi di nekk ci biir réew mi waaye nekk ci bitim réew di yóbbante seen i ñaan ak seen i cofeel yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen fàttali ni yéen a ngi suivre seen émission arrêt sur texte ci seen télévision TFM religion bu ko defee nag ñu ñibbisi fii ci senegal mbokk yi ànd ak sunu maam Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ci njàmbatam li nga xam ne adduna bi yëpp dégg nañ ko fala budda min shakwa ilallahi kurbati fa maliya gayrullahi jabiru kasrati ñu dem régi jëli élémenté ñëw insha allah anta karimun fal karimu man iltaja ila نعما على كل نقمه إليك بضعف وافتقار وفاقة لتغفرني يا ربي من كل زلتي فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستقيما من شدتي فأنت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار واستر معيبتي فيا ربنا اسر إليك خواطري بجاه نبي للبرية رحمتي فيا حي يا قيوم muy Allah Seydi El Hadji Malick toog na ni daal fi ma fi ma nekk foog ma wax ak moom muy sunu borom fi ma toll it foog ma wax ko muy la daloon yonent yàlla Moussa keroog mu reyee euh, euh, nit ka te tiit génn daw ba mu demee ca teen ba ba rootal euh, euh, doom yont yàlla Suaybu ya ba mu demee ca garab ga toog ca bangu jaaxle ba def ko ni rabbi lima anzalta ilayya min xayrin faqir ni ko yàlla loo fi denc lu jëm suba rek tey laa ko gën a soxla moom Seydi Hadji Malick foofu la toll woon bi mu naan fala budda min shakwa il faut ma wax il faut ma wax ko fi ma toll donte xam na ko waaye naa ko joor ba ñëpp yëg ni maa ngi ko koy joor rek ndax loolu la wax udduuhu euh, tadarruan wa xofya bu fekkee noonu la waaye ñaan leen ko ci biral ko ñaan leen ko ci yellu ko ndax yëpp la dégg sunu borom mu ne nag il faut ma wax ko li ma dal il faut ma wax ko li ma nekke ndax wa qaraa ya baabal gayri ya rabbi lam yufit li daaka soraf naa naxwa baabika wijhati munu ko yëg ni bunt bu ma dem jombul ñu ne ma negal ba suba wala borom nekku fi wala daa jàpp loolu laa ciy bañ moo tax ma ñëw ci sa bunt mu wóor ma ni yow dandu woo fi te it doo tànqamlu wootab aji woote moo tax mu tàmbalee nag mu tàmbalee nag ci fa anta karimun fal karimu man iltaja ila baabihi yaman ala kulla nicmatin mu ni yow mi nga xam ni yaa tedd yow mi nga xam ni yaa baax yow mi nga xam ni yow yaa lewet yow sunu borom yow lay ñaan ndax ñaan dafa am mbokk yi ñaani nit am xam nga kii ñaan du ki ñaan du wane ak euh, maanaam di wan di ñaan nit ki ba pare wan ko ni ko li nga may ñaan kat bu nga ma koo may wala mën nga ma ko bañ a may ah maanaam doylu kuy ñaanit doo wax dëgg yàlla doo gaaw a doylu kuy ñaan da ngay xaw a foqale di wane ni li ngay ñaan da nga koo soxla waaye kuy ñaan dangay ngay toroxlu wàcce sa bopp ba ki ngay ñaan yëg ni am na humilité boo wàccee boo yor te loolu moom mooy tax mu may la li nga xamante moom la lay may moo tax mu ne nag fa anta karimun ey eh yow ku baax ki yow sunu borom te fal karimu manil taja bu dee ku ku baax la nit ñi di wër nañu ñëw ci sa bunt toog fa ndax yëg nañ ni ku baax ku dem ci buntam toog bu ubbee sa ajo faju mu ni ko it fa anta xalimun ya saburu li man jafa fa ha ana abdun jitu baadiya zellati mu ni ko kuy wër ku lewet di wóor kuy mën a muñ na ñëw toog ci sa bunt te bu boobaa boo ubbee yaakaaram dana dëgër mu ne nag fa lamma badaali annahu laysa mahrabun siwa baabika alxaami madattu yu dayyati bi nga xamante ne nii wóor na ma ni wóor na ma ni amul muccukaay ak rawukaay bu dul ci sa bunt bi ci laa jublu directement rek ci sa bunt ñëw nag toog tàllal samay loxo di xaar nga teg ci ba ma dem ndax sonn naa te it soxla naa ko mu ni ko nag ma defee ko nag ak modestie ilayka bi doofin wa iftiqaarin wa faqatin li taxfira li ya rabbi min kulli zallati ma defe ko nag ngir euh, wàccee sama daraja wàccee samay euh, may bañ a gis sama bopp benn yoon tàllal samay loxoy toroxlu ak samay loxoy joxe kilifteef ba mu mat sëkk ngir nga man ma jox li nga xamante ne nii loolu mooy sama càkkuteef moo mu ne nag fa bayna ma fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan dalilan xaqiran mustagiisan li shiddati mu ne ah dinaa fi yàgg de dinaa fi yàgg ndax tànk sama soxla fajuwul du ma dem yow sama borom kon nag gaawal ubbi rek jox ma ma dem bu fekkee bëgg nga ma bañ fee yàgg mu ne nag eh, fa ya rabbana srif ilayka xawaatiri bi jaahi nabiyin lil bariyati rahmati eh yow sama borom waay waay gaawal nga teggi njàqare yi gaawal nga teggi coono yi ah, bu dul dara it nga rusé ma sama soppe bi nga xamante ni nii wax dëgg yàlla ko làqu ci ginnaawam nga rusee ko ko muy sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni ko fa yaa xayu yaa qayuumu yallaahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati mu ni ko yow mi nga xamante ne ni yaa fi sax ba faw mu ni ko yow mi nga xam ne yaa net yaa taxaw ni jonn te doo fi mos a jógee ci yow lay eh, jublu si waayit nag jaar ci buntu ki nga xamante ne ni moom mooy xayril bariya sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ñu demaat jëliwaat suñu beneen élément te ñëwaat ak yéen ci texte bi incha allahu ilahi ya mawlaya bil ardi was samaa wa ma hawata fanashfina kulla illati laka alxalqu ya mawlaya wal amru kulluhu ala takilan amri li gayrika zuxrati mashaariba lil hadratayn tasqina أفي بحجاب القلب مع كل قسوة مضت والأيام والذنب حاصل وساع أوراق البيت معلم رحلتي مضت والأيام والجسم عابد والله الرحمن خالق جسدي وضده الأيام والقلب شاكر سواه للهدى بدلت معيشتي مضى الدهر والأيام والذنب حاصل على أنني مغلوب نفسي وشهوتي على أمر والله مستطاع رجوع هكذا بقوتي لقد طعام ساعة منه تشترى به السماء ولكنني أرجو تلافي ربنا وإلا مبنيها لقد أيه الكثير ألا يمتي فاجعل لينفق حرا خالصا كل وجهتي ko noonu lakal xalqu ya mawlaaya wal amru kullahu wala takilan amri li gayrika duxrati munu ko yàlla yow mi nga xam ni yaa bind ñëpp te moom leen boyal leen nag kenn ku ci nekk di xëyal sa bopp di gontal sa bopp laajoo leen ci seen temps lu dul lu tuuti rek te léeg-léeg ñu nay la ko jox wala ñu fàtte la ko jox yow mi nga xam ne yaa moom lépp kon nag maa ngi lay ñaan yàlla boo ma nattoo sama mbiri bopp di ma yitteel ba may bàyyi say digle di bàyyi say tere mu ne ko nag mada dahru wal ayaamu wa zambu xaasilu wa saaxa guraabul bayn mu ne ko li passé ak li jàll day dalul sama xel mu ne li ma paase ci dund passé ko ci ay fan dalul sama xel lu tax wa zambu xaasilu dama wóorul ndax bàkkaar juumloo na ma feem déet wa saaxa xurabul bayt te it daa mel ni day bu doon saxaar ma ni liit na ba ma ngay bëgg a dem kon nag kuy tukki jógal wàcc ma da dahru wal ayaamu wal jismu aabidun si wallahi wa rahman xaaliqa jussati mu ne li weesu ci sama dund weesu ko ci samay fan dalul samam xel ndax dama xamul fu fu ma fi yaram juumloo fu ma fi yaram juumloo mooy ma fi nekk surgëb nit walis nekk sa surga ndax léeg-léeg eh, waxtu jot nga war a nekk surgab yàlla nga nekk surgab nit ba far loola fàtt la waxtu woowu nga xam ne moom nga amee la sama mu ne damaa xamul na ma fi nekkee surgab nit ci diggante bi moo tax wóoluwuma li ma passé ak lima ma romb mu ni ko mada dahru wal ayaamu wal qalbu shakirun siwaahu wa minhu dahr jalba maishati mu ni ko li weesu day ak li passé dalul sama xel lu tax ndax dama wóorul ba xam sama xol juum na ma fi waroon laa sopp waroon laa gëm waroon laa top ma far sopp gëm wala may top keneen ci place boobu moo tax mu ni ko nag eh, mada dahru wal ayaamu wal qalbu wa dambu xaasilun ala annani mamluku nafsi wa shahwati mu ni ko li weesu ak li ma passé ci sama dund day dalul sama xel ndax ba léegi it la ma waxoon rek xaw ma fu ma fi bàkkaar juumloo xaw ma bàkkaar na ma am déet ñi ma taxawu ku ñu taxaw wax dëgg yàlla du ñàkk bés ñu man laa juumloo muy bakken waaye di bànneex mu ne ko nag lu ma mën a wax mooy laqad daa umrun saatun minhu tushtara bi mil sama wal ard ayata dayaati na xam sank na dund goo nga xam ni lu cher a la buñ ko doon jaay di nga jaay euh, di nga posé asamaan posé suuf euh, jaay leen te du tax ñu mën a jënd dund boobu ndax benn seconde bu dund rek kenn mënu ko fay yàlla la ca nekk ci ay noyyi la ca nekk ci euh, ay xéewal la la ci yàlla defal yépp loolu kenn mënu ko fay yàlla moo tax mu ne nag walakin nii ñàkk gu ma yaakaar nag li xew yépp mooy sama dund gi wéyeeg bàkkaar yu bëreeg njuumte lu metteeg yaram mu doon jaamu keneen ak xel mu fi nekkul woon ak lépp taxagul ma ñàkk yaakaar walakinnani arju talaafiya rabbina wa illa fahabni halikan ayyahul katim mu ne bu ma wóoree ni yow lay fekk si ndegeem yow laa foofu yow lay fekk si foofu daal sama xel dal na ndax xam naa ne yaay xafaaru yaay jéggalaa kon kon nag rafet njort ci yàlla it dafa baax mbokk yi nga dafa ne ala himmati ilahi ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati mun yàlla sama sama yéene yëpp nag sama euh, objectif yëpp mooy bu may ñëw ci yow naa nekk sa gorte bañ a nekk góor keneen allahu akbar mbokk yi maam Seydi Hajji Maalik Gangook ñu delluwaat rëji rek jëri suñu jëli suñu dernier élément incha allahu te dellu siwaat ak yéen ilahi ala rabbun siwaka fayutaja bayna salaati وأنت إلهي ما سمعت في الندى المضاد يا إلهي حكمتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر لملكي وكان شديد الإله زيارة زوايا ولكن العنان بقبضتي هنا النداء وخل دار يقيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده وعدت وانت الوعد عندك صادق اجابتك عندي التي إلى يفاف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة كذلك إخواني إلهي جملة ومدة من ربي يا خير ملتي كذلك إخواني إلهي جملة ومدة من ربي يا خير وأزكى صلاة الله ثم سلامي على خير خلق الله من خير ثميتي مع lisan ilahi la rabban siwaka fa yurtaja fa innaka fasil hamd alxaliqati mu ni yàlla buur bu ñu war a yaakaar amul donte am na ñuy yaakaar keneen waaye wër la ñu war a na def defuñu ko ka ni ko nag ndax yow fa innaka fasil hamd yow yaa yeyoo ñu di la sant yow rek yaa ya yaa daganoo ak cant indal xaliqati ci mbindeef yi wa anta ilahi yow yàlla baasitul yadi fi nada wa gayru mudaadin ya ilahi bi xikmati mu ni yàlla yow mi nga xam ni fa sa tab gi yam gennuk tab àggu fa ndax ñi tabe ñëpp yaa leen jox lu ñuy ni yow nag yow lay dagaan te xam na ni benn kenn fekku la ci benn kenn fekku la ci muy nekk yàlla ñëpp mën nañoo xëcc lépp xëccoo lépp gañe ko ba mu des xëccoo nekk yàlla gañe ko boobu moom kenn mënu la koo xëccool ba gañe la ko tax mu ne wa fil amri wa sultaani wal mulki la munaziun laka mawlaana fa yassir bi mu ñetti mu ni ko dogal ak uh, falak folli ak uh, may ak xañ ak ray ak dundal loolu ñëpp bàyyi na ko yow ndax sa pouvoir la ba nga xamante ni pouvoir personnel la yow yaa ko yeyoo yow sunu borom moo tax mu ne nag wa anta min al axlaq tamliku ma tacha wala yamlikuuna minka gayra al machiati nit ñi nag am na am nañu limite ci yow mooy am na lu ñu sañ ci yow waaye am na lu ñu sañul ci yow yow nag sañ nga lépp ci ñoom nit ñi li ñu sañ ci yow mooy sa coobare lu sa coobare maye rek loolu nit sañ nañ koo jël ci yow muy wërsëg gi muy euh, dund gi muy euh, wér gi loolu sa coobare moo la moo leen ko may moo tax ñu sañ koo jël ci yow waaye boo bu ko sa coobare xañee ñëpp ñàkk moo tax bëccëg ngay dund yàlla xëy dagg fa coobare la dund nga jeex bëccëg ngay am yàlla xëy dagg fa coobare la wërsëg wa jeex bëccëg ngay wér yàlla ñëw indi coobareem wér ga jeex moo tax mu ne ko nag seen sañ-sañ ci yow mooy sa coobare kenn ku ci nekk fa coobare yàlla yem ci yow fala sa sañ-sañ yem ci yow waaye yàlla nag sañ-sañam ci yow amul limite ndax saa yu ko neexee nu ko neexee rek mën na koo jëfandikoo ci yow ndax day jaar rek sàkk moo tax mu ne nag ilahi bi qutbil aarifina imamina rajai wa gawthi lil ilahi wasilati mu ni yàlla ku nekk am na kuñ koy ruse te ku nekk am na kilifa mu sama kilifa sama kilifa nag mooy abul abbas ahmad atijani mu ni mooy sama wasila ci yàlla de mooy sama xeetaliku kaay ci yow waaye it mooy sama bunte ci yow mu ni bihi de ci cheikh artaji laa yaakaare fatxal maghaliqi kulliha ubbik ndàmb yi maanaam cheikh daal mooy sama caabi lépp ci yow wiqaayaat na sama kaaraange daal at tijaan yi mooy cheikhu tijaan yi min kulli shiddati ci tartar yëpp mu ni nag am na lu ma metti ci moom wa kam ashtaki inda al ilahi ziyaratan zawayahu lakin al anana bi qabdati li ma metti ci moom mooy li ma ngéejoo woon dem ziyaare ji ko ba léegi dogal bi ñëwagul mbokk yi fii jar naa yéem maam Seydi Hadji Malick ci maqaamam waaye jar naa yéeg yéem maam Seydi Hadji Malick ci mayam ndax bi muy wax lii dogu wu ci waaye bi muy wax ni dafa bëgg dem ziyaare ji yonent bi daf caa dogg parce que daf ni fa duniyaakumu haakumu idaqani alqada an izawri min daari alhabibi wusuul seen adduna ngoog jël leen bu ma yàlla mënula may ma dem ziyaare ji rasulullah kon da caa dogg ni bu dul ma geddi seen aduna dem mu tax yàlla may na ko ko ba mu demee nag daf ni alhamdulillahi rabbil alamina ala ziyarati qabla fawti safwat allah alhamdulillahi ndegam ziyaare ji naa kii nga xamante moom mooy tànneefu mbindeef zurtul habiba allazi turja shafaatuhu alayhi alfu salamatin minallah waaye bii di cheikh nag moom dogowu ci daf ko bàyyeek yàlla ak coobareem moo tax foofa la ca yem mu ni nag unaadi maa ngi woote wa hal yusdin na da ndax woo bi sax woo gii may woo sama borom di ko ñaan lii ndax dana jariñ kon mel na ne xawoon na ko njort ni du ko am moo tax mu ne nag hali dëhru yoo tey muraadi wa ragbati moo ndax jamono dina ma may sama càkkuteef ak sama bëgg-bëgg ci yàlla ngir mu may ma ma dem ziyaare ji Cheikhu Tijaan yi wéerul na ko ni du am moo tax doguwu ci moo tax mu ne nag wa ma ziltu arjuha ah maa ngi toog rek di ca xaar yàlla ba foo mu koy dogale wa in lam analaha ma ko amul nag gis nga bu ma ko amul kon ñaaw na njort ci ni mën na koo bañ a am yaa mararata aysati ma yóbbaale mettitu bëgg a ziyaare bëgg bëggoon dem ziyaare ji Cheikh te ziyaare ji mu ko moo tax mu ne tàggoo yàlla faaful walidayni ma ñaanal samay wayjur ndax loolu jàngale bu rëy la mbokk mbokk yi kenn warul fàtte say wayjur mbokk yi kenn warul fàtte say wayjur ndax ñooy sa sababu dund moo tax mu ne yàlla yàlla na nga jéggal samay wayjur zunubahum seeni rëcc-rëcc ak seeni euh, seeni euh, njuumte kazalika ya rahmanu kullal masiixati ak samay sëriñ it yàlla na nga leen yéega ci yéegawaay boobu wa azka salatillah julli yàlla yu teddi julli yàlla yu sell yi ak musalam ala xayri xalqillahi min xayri sunya ci yàlla na yàlla dotti ko ci gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul muy settee ci benn xeetu julli ci moom luy julli ci moom rek yàlla na ko yàlla euh, wàccee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ali mu dotti ko ci ñoñam yi wala ashaabi dotti ko ci sahabaam yi ma darra shariqun wa ma qaala daain ya ilahi li shiddati fekk euh, aji fenk ji di jant bi mi fenk fi muy fenkee yàlla yàlla di dotti julli yooyu ci moom waaye feek aji ñaan jaangi ngi tàllal ay loxoom naan yaa ilaahi li siddati yàlla wallu ma ci sama tartar bi te loolu du ma sa jóge ci àdduna parce que moo jamono ànd yàlla na yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi ah, yi seen émission arrêt arrêt sur texte ngoog waaye bindi mag ñaa ngoogu seen xalima yaa ngoogu tabarakallahu mu rafet lool woy bi ñu doon ci ànd ak Abdoul Aziz Mbaye moom it mu woy ko woy wu rafet ah, bu ko defee ñu di leen sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen doon topp seen émission ci seen télévision TFM religion doon ci ak seen mbokk Ibrahima Cissé ma di leen dig daje samedi bi nga xamante ni mooy ñëw euh, bu 3 heures jotee di nuyu nag di ziara mbokk yi ñi nga xam ne ñu ngi topp ci biir réew mi di ñu topp ci bitim réew wax dëgg yàlla di ay kilifa waaye di ay soppee rek ku nekk yaa ngi fa fësal sa mbégte ak sa kontante ci émission bi di wax ni yeex naa ñëw parce que soxla nañ ko ci jamono ndax mbindi mag ñi dafa bari leer mbind mag yi dafa bëri jàngale te it moom lañ fa bàyyi comme ndénkaan wax naa ni maam Seydi Hadj Malick ba mi dem dan yaa raayisal bahri yow miy nooru géej yow mi wuti wuru su ngalam ci xam yeneen ti bi toogal fii ma wax la yeneen ti kon kooku dénkaane na mbindam maam Serigne Touba it nee na karaamati xattu ya bi sama sama karaama mooy sama mbind kon kooku dénkaane na mbindam mag ñëpp noonu la ñuy def kon yàlla yàlla def dégg may dégg ak topp ñu balu leen àq dig leen daje samedi bii di ñëw incha allahu ci beneen émission arrêt sur texte di gërëm Yaxya mi nga xamante moom moo nekkoon ci caméra bi waaye di sant suñu euh, monteur bi Khadim Ndiaye waaye di sant réalisateur beeg yëpp wala réalisatrice bi di leen gërëm di leen tàggu ba beneen yoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf. arrêt sur texte taxaw seetlu ci mbind mi